doon taxaw di xaar léewtoo léewtoo bu contact amee mu daan ñibbi gentiment du sonn bu ñuy bëri Gris Bordeaux dama gëm loon Gris Bordeaux ne ko yow yaa war a daan nii lu tax pourquoi hmm. parce que am na bëri am na am na bëri ba am na allure ba am na fi vitesse waaye nag exécution ba mu ko war a daana gi nag la àggul woon mooy éprouver ko cest à ko loo xam ne da koy sonal ba mu ba mu àppaat tuuti parce que un technicien comme Yékini bu sonnul du gaaw a daanu combat bi bu ñu ko liilee tuuti xam nga yàggul mais coono bu ndaw mën na cee génn essoufflement mun na cee génn fatiguement mën na cee génn pourquoi parce que c'est un peu rythmé le combat. Moussa Fall foofu c'est important <laughs> c'est un peu rythmé laa jàpp alo allo ñu ma jël ki ci ligne daal allo. allo oui. oui euh, man la Odile. Modine Sokone laay wootee waaw. waaw yow la ñuy déglu. waaw damaa kontaan nag ci Balla Gaye waaw ndax sama fans la dama ko bëggal sama bopp. dëgg la. waaw fini nag nee na gëm na gëmul daanu ak daan. waaw tey nag ñun won nañ ko ni daan ak am na. dëgg la. waaw merci. merci beaucoup. waaw Moustapha nga ni am na tuuti essoufflement ci biir combat bi ndax ku mel ni moom foog nga éprouver ko. mais exactement. parce que dañ ne bon plus que nga gën a ponkal plus que nga gën diis très souvent ngay gën a sonn ki gën a oyof. ça ne veut pas dire dafa sonn ci combat moo tax mu daanu. Mhm. non je pèse mes mots. Mhm. cest bi ñu waxee Gris Bordeaux da jël moment jël temps teg ko coono pour daan ko jotu fa am loolu. benn contact moom chute am. waaw c'est normal parce que ki moom bëreel moo ko expérience jiitu ko ci làmb déglu ko mu exécuté mu tëdd ci kaw mu daanu. Balla kay 2 différence bi ak ak Gris Bordeaux moo nekk lan mooy mooy mooy Balla dafa jàpp Yékini bëri la ko loo ko bougé la ko. xam nga Bombardier dafa jàppante yow taxaw. taxaw Moussa bul dem de taxaw boobu taxawal foofu allo ñu jël ki ci ligne bi alo alo allo oui. asalaamaaleykum. waaleykum salaam noo tudd ku baax. Euh, maa ngi tudd El Hadj Touré fii ci golf waaw El Hadj yow la déglu. ñu ngi leen di ziar baax de. ñu ngi lay ziar baax El waa ñu nag dañoo kontaan trop. mais merci beaucoup. ndax wax dëgg ne yàlla ki doon bëri ni sax nekk suñu mbër. Mm-hmm. ndax ñu bu ñu bëggee bëri Moustapha Gueye moom toog moo tax ñu bëgg dëgg la. Moustapha Gueye fekk na ma Gambie donc papa bu ma saan jàkkaarloo Moustapha Gueye du mën a xool Moustapha Gueye xam naa moom Mouhamadou Touré lañ koy wax mu nekk Banjul. Mhm. waaw kooku wax dëgg na yàlla fa laa jaare bëgg Tafa. mosuma woon am beneen mbër bu dul Tafa Gueye tey moom vraiment jébbalu naa ci Balla Gaye <laughs> dëgg la dëgg neex yàlla. merci nga ngi koy ñaanal daal yàlla jàmm. Touré lan moo tax nga jébbalu Touré. li mën a bëreem. est-ce que dëgg la de. ak fit ak fit bu mu am. loolu am. ndax bu mënul woon bëree amul fit. non du daan Yékini Yékini ko amul bëre bi amul. doo ko daan doo loolu nekk na dëgg na dëgg la jërëjëf Moustapha yaa ngi woon ci ba mu jàppee Bombardier dama fa taxaw. fa taxaw waaw. Yékini dina bëri bëri statique parce que boo luuree dootoo bëggati coono ci làmb dangay ngay jàppante taxaw liggéey mu daanu da ngay daanu tout de suite mais newoon naa la. Balla bu jàppee dafay dafay bëre day bouger day bouger mhm. il faut faire bouger ton adversaire pour éprouver que la ko pour mën a jaxasoo ci bougeur yooyu ñu nekkoon di bouger nag ci la Balla Gaye nekk te Balla encore dafa jàpp xañ njëkk ni mu jàpp xam nga newoon leen fii ne leen mba ñaari mbër di bëri ku ne sa sa gañu morom dafa ma jàpp sa ngemb kon xëy na loolu mun naa nekk mais combat bi li muy gudd gudd yëpp Balla musul jàpp jàpp waaj jàpp mu ngi liggéey mi ngi liggéey c'est important avance arrière mais c'est éprouvant c'est éprouvant nga avance arrière ñu jël la nga bañ jël jëlaat c' est énorme mënoo ko xam te bëriwuloo mais Moussa dafa am benn déclaration bu Yékini wax ni mhm. combat bi mën naa bañ a àgg fi mu wax mhm. ndax kii mënu ma yëngal am na ko nekk ci ligne bi defe na allo bon am allo alo oui allo c'est TFM oui c'est TFM vous êtes en direct oui alo alo alo oui ça va ça va très bien monsieur oui c'est Abdou Ba Boutirimi ah Abdou bon bonsoir bonsoir ça va ça va bien Comment vous avez vécu le combat Ça va, Machallah. Ça va. Mais. Euh, Yekini. Mm. un grand lutteur. Mhm. Mais encore, Balagé, c'est un grand. <laughs> le, plus grand. ok, Abdou. Et à bout de limite, ça va Mais Koudane Tazen, Munga Dane Kune. Degle. Ah. Ok, merci beaucoup. Ça va Moustapha, je sais pas ce que tu as dit. Je combat bi sax mën na gën a gaaw noonu ba pare moom dafa attaqué contrairement li mu daan def. waaw exactement. Ah. dafa attaqué bi yoon contrairement li mu doon def daf mel ni Balla li mu doon wax dama koy prouver li mu doon wax du dëgg. Mm, mm, mm, bëgg a weddi waxu koo xam ne mën na bëri te am doole Moussa Faye attaque wu Yékini parce que man c'est la première fois. Mm-hmm. ma koy gis ci attaque bu mel nii. wala book bariwul li ma ko gis. exactement ba muy ba muy nekk jeune lutteur. doon na ko def gis naa ko moo faram gis naa ko. Lac de comme ni ñu ko waxee bi mu toogee ci trône bi. Mhm. dafa commencé limiter ay dégâts am nag. na bëre soo mënee bëre Abdou Aziz di xaar gars yi di bëre ngeen di tiim di liir leen daan dafay yomb mais dégg des na aussi kan nga dajal ak ak naka naka la oh, dafa bëre ñi doon dajee Yékini daaw ñu bëre day dañuy dañuy jàpp daf ko nu ko neex la neex daan la mais kii dafa ñëw nag bëre. na sa bëre bi nga mën d' naa mën nga bëre mais d' accord maa bëre il a communiqué comme ça. Balla Gaye il a communiqué comme ça waaw. Ah. jërëjëf ma ci Moussa Moussa euh, nga yor mbër bu mel nii yow nga xam ni soo soosey doonu mën a xeex doonu mën xëccoo nga yoroon tey euh, Yékini euh, doon nga defee neneen nu dul nii ñu defee parce que toj ñan bi ci boppam ñun prévoir ko woon ci li ñu doon waxtaan mais ci ni nga xam ni noonu la Balla ngemboo tey jaaxal ñu baree bari mu ñëw rek taxawul dëggal boppam ci wàllu dafa am ku ci ligne bi allo. allo allo oui. waaw donc man Jean Michel laa tudd. Jean Michel na nga def. waaw léegi xam nga li ma ko mën wax mooy en fait faut que gars yi gars yi comprendre benn affaire. Hmm. gëmuma daanu ça di dire que man maa yàlla. Hmm, mais dégg gars yi xam ne m gëmuma daanu mooy man du ma dem combat mais damay daanu. Hmm. donc foog gars yi xam ne que su may dem combat damay dem pour daanu. c'est vrai su fekkee ne dama naan dem pour daanu moo bañ a dem. donc faut que faut pas que gars yi extrapoler. donc gars yi dañu war a yem. Mhm. léegi lamb nag moo demee nii mhm. da ngay lamb. Mhm. soo jot nga gagné soo li mu wax yëkk nii man moom la àndal. nee na daanu loolu mooy li am. doo mu guerre wala dem combat nee damay daanu. jërëjëf. donc gëm loolu. merci beaucoup merci beaucoup ci réflexion parce que ça non non non c'est vrai parce que. Euh, monsieur euh, ñu remercier bu baax ñu ngi koy remercier bu communication mbir bi communiquer. c'est important. Yékini logique bu mu nekkoon amul changement gëw ma daanu xaw ma daanu daan laa xam loolu mooy dëgg. mooy dëgg seen une réalité ci la nekk nag ba tey jii ñu daan ko foog ñu daan ko parce que kuy bëri mooy daanu donc nit ñi aussi bu dee euh, réagir ah ñu xam ne loolu waxu mbër combattant la di communiquer. par souci ba pare sax euh, Moustapha ci wàllu ngëm yàlla ngëm goo xam ne da ko gëm di pratiquer comme moom. Euh. war na xam ne yàllaay dogal. bien sûr ci nit. loo xam ni bis ba ngay bëgg du ko def nga xam ni loolu mu am dafay reetaan dañ ko daanu gars yi lënga ko muy reetaan justement xam na ne da daan daan di daan tey daan nañ ko xam ne ne ñi mu daan daan ay nit lañu tey daan nañ ko mais il est mu reetaan ne bon daanu na lan la ñuy dox léegi ah, le roi est tombé c' est pas c' est pas la fin du monde c' est zéro fois rien lamb ji moom fu nekk moom. Ah. seen business dañ la daan ba keroog nañ ñu gis mbër moo xamante ne daan na ñëpp te ko. amagul de amagul amagul daan te kenn daanu ko amagul ma ñëw ci musa musa foofu laay wax nga yor mbër euh, mu xëccoo parce que yow yor nga Moustapha Gueye mu bëree ak Balla Gaye numéro de ñu ay xëccoo mais tension bi àggul woon nii te teewul dugg nga fu nekk. moom Galac de Guerre dugg nga fu nekk. est-ce que tey jii yow boo yoroon dégg tension bi ni mu amee ak wa nan nga foog ni préparation mystique bi noonu lañ ko war a accès ak communication. Euh, am loo xam ne Abdou Aziz. Mm-hmm. mooy Yékini man sama gis-gis li ma seetaan il a mal lutté. Mm-hmm. mal lutté. il a mm-hmm. que ci biir loolu patience moom doon am xaar mbër ñëw bi yoon def ko. te Balla dafa toj neen bi rek xaar ku taxaw mu mel ni moom amul lu mu war a prouver moom moo war a ah, Yékini mu war a prouver Yékini itam li mu bëree mooy tey ji booy bi li ma wax nii tey ji tey ma faj ko ko te du noonu mm. du stratégie la waroon am mm. boo xam ne ak ñi mu àndal dañ koy dañ dañ koy def comme football mm. stratégie la am défense en ligne comme donc tey ji loolu la waroon ñëwee mais li mu ñëwee tey jii maa mën xale bi dinaa ko wan ne maa ko mën parce que tension bi am na sama diggante ak moom donc ci biir loolu kon tey ma woon ko bëri te dama lay wax ne la soo essayé bariwuñu lu ñuy xëccoo ci ñoom ñëpp ñu bugg ko te ñàkk ko bariwul